Seck code de la route Sëñ Fallou président du COSER comité d'organisation pour la sécurité du Grand Magal de waaw li waraloon ndaje mi mooy bi ñuy waaj màggal gi dañoo ànd ak waa COSER yëpp euh, waxtaan taxawal li nga xam ne mooy suñu plan d'action jëm ci wàllu sécurité ru màggal Touba yàlla dimbaluñu nag. ba ni nga xam ne noonu lañ ko tërale woon sax mujj ñu ko defee noonu ngir manque ay moyen ndax bëri na ci ministère yi ba ci ministère bi ñu bokk muy transport defoon nañ fa ay demande appui mais amul kenn koo xam ne daal jox nañu benn jàppale mais yàlla dimbali nañu ba li ñu bëggoon a def def nañ sax lu ko ëpp ndax bi ñu jógee ci suñu plan d'action bi euh, def nañ tournée bu yaatu ci dëkk bi lenn ci gaaru ceer yi ak garage taxi yi defal leen li nga xam ne mooy formation de renforcement de capacité jëm ci wàllu signalisation euh, vertical ak li nga xam ne dafay jëm ci wàllu caractère priorité yi ñaax leen aussi soññu leen ci màggal gi nga xam ne moo nekkoon ci sunu kanam pour ñu mën a def lépp lu ñu man ba moytu li nga xam ne mooy accident de la circulation bi ñu ci jigee itam euh, ginnaaw bi ñu defee loolu yàlla dogal na am na benn yàqu-yàqu bu mag boo xam ne mi ngi nekkoon ci wetu koni Serigne Modou Sy Dieng àndoon lenn ci garage taxi yi ñu defaraat ko defaraat bu mucc ay ba nga xam ne euh, oto yi ñu ngi fa doon jaar ba fii may wax ak yow xëy na oto yi ndaw yi ñoo fa dul mën a jaar ndax ndox mu bëri mi mais camions yi ñu ngi fay jaar. Euh, ñu continuer ci loolu ba yàlla dogal ñu séqoon ak waa Autoroute du Sénégal réunion bu mag ci seen siège bi nga xam ne moo nekk Kër Mor Ndiaye ay euh, organisation transport yu bare bari fekke woon nañ ko bi fa dajee itam waxtaan bi li ko sababoon mooy nan la ñu def ba autoroute bi accident yi mën a wàññeeku. mais aussi dem bi ak dikk bi ci autoroute bi mën a yomb bi ñu jugee itam ci loolu ginnaaw réunion boobu yàlla dogal na tamit directeur général ANASER ñëw na fii ci dëkk bi ñu ànd ak ñoom ak acteur transport yëpp ak secteur automobile yëpp vraiment dem ci Serigne Mountakha jóge fa dem ci Serigne Cheikh Bass vraiment mu yëkkati ay kàddu yu am solo jagle loon ko ñi nga xam ne ñooy màggal si pour que ñu def ndànk euh, yemuñu ci loolu dañoo continuer ànd aussi ak waa SONAGED muy UCG ci beneen liggéey bu am solo boo xam dañ ko ànd ak kilifa yi gaaru teer bu Touba héliport ñu def fa nettoiement bu mag a mag a mag boo xam ne c'est une première ñu gis lu nu mel ndax keroog jël nañ fa lu mat fukki charge euh, mbalit ak juróom ci ëllëg si ñu indiwaat indiwaat fi équipe bi nga xam ne mooy bale ñu bale gaaru teer bi yépp ba mu set tonni ko yóbbu ci noonu lañu ñu li nga xam ne mooy activités yi ba ci biñ ne ginnaaw suba la màggal ànd nañ ak waa ANASER ak l'autoroute du Sénégal ci benn campagne bu ñu doon def ci aire de service bu Bambey bi di sensibiliser ak di def dépannage gratuite ñu ànd aussi ak ñuy def dépannage gratuite fii ci Touba yóbbu leen fi nga xam ne mooy ci euh, aire de service du Bambey bi ñu def fa liggéey bu am solo te lu ko jiitu aussi am na benn quartier général boo xam ne Touba ci kanam ñoo ko doon organisé amoon ci bis boo xam ne dañ koo jagleeloon transport àndoon nañ ci ak ñoom vraiment mu nekkoon tam waxtaan bu am solo boo xam li ko taxoon a jóg lépp mooy naka la ñu a def ba Touba transport bi moderne ñu am aussi secteur routier boo xam ne bu mucc ayib lay doon ci Touba. Euh, noonu la ñu continuer nag ci groupe WhatsApp yi euh, responsable yi nga xam tam ñoo nekk ci ci nekk taxaw thème ak yi nga xam ne ñoom la ko séqal yépp parce que am yoo xam ne transport lañ mais am ñoom dañuy yëngu ci wàllu renforcement de capacité ak secteur routier muy RCRS ñëpp dañoo àndoon taxaw vraiment def sensibilisation boo xam ne bu mucc ayib la loolu nag. mel ni ni sunu borom ñëw na ak ndimbalam ba gis nañ wàññite bu mag a mag a mag ci wàllu accident yi ndax ci sunu bilan d'activité bi rek tey boo ko xoolee année bi nga xam ne mooy deux mille vingt deux ñi ngi amoon 425 cent vingt cinq accident la ñu amoon ci cent vingt cinq accident yi nga xam ne amoon nañ ko ci ci année bi nga xam ne mooy mille vingt deux amoon nañu 986 victimes waaw ci 986 yooyu victimes yooyu euh, maanaam amoon nañ ci euh, non non 939 victimes 909 la ñu assisté ñu amoon ci fanweeri nit ak ñett yoo xam ne ñàkkoon nañ seen bakken kon boo xoolee accident yi daaw ak ren dafa dafa dafa dafa wàññeeku ndax ren 250 accident la ñu am ren ci cent 250 accident yooyu 887 euh, victimes la ñu ci am boo xoolee ñi ci ñàkk seen bakken Euh, ci ci accident ren yi ñu ngi nekk ñaar fukki nit ak ak ñaar fukki nit ak ñett kon ba tey da nga gis ne am na wàññite fukki nit kon accident yi booy xool ci ci suñu bilan d'activité ni ñu ko jàngatee vraiment am na wàññite bu mag a mag a mag boo xam ne euh, am na ci ci diggante daaw ak ren ndax wàññite bi rek booy xool ci accident yi wàññi na ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci wàllu victime yi wàññi na ba toll ci juróom fukk ak euh, ñaar ci wàllu ñu ñu assisté wàññiku na ba toll ci ñeent fukk ak ñaar ci wàllu dese itam fukki nit wàññeeku na ci donc daal kon euh, gis nañ daal liggéey bi nga xam ne def nañ ko ak collaboration bi nga xam ne am nañ ko ak mboolem yi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu accident jur na li nga xam ne daal mooy euh, maanaam wàññeeku bu mag a mag a mag ci wàllu accident yi. li ñu nemmeeku aussi mooy euh, ci wàllu retour bi accident yi bëri na ci loolu nag ñun ñëpp am nañ ci responsabilité di jàngat naa ko parce que xëy na sono bi nga xam ne moom la ñu daj avant ñuy màggal. tax na bi ñu màggalee ba noppi ci retour bi maanaam sensibilisation yi dafa wàññeeku bu baax a baax a baax muy man muy keneen ak keneen ak keneen loolu nag gis nañ ne jur na ci retour bi accident yu bari am ndax autoroute Ila Touba bi rek amul benn accident ci allée bi mais ci retour bi am na 8 morts foofu tam wàññeeku na benn ndax daaw 9 morts moo fa amoon ren am nañu 8 morts te lépp boo koy seet ci retour bi la kon gis nañ ne daal retour bi am na beneen taxawaay boo xam ne moom lañ ci war a yokk ngir. Euh, bu ñu àggatee ci retour bi accident yi gën a gën a gën a wàññeeku yooyu yëpp nag euh, dañ cee ànd ak maanaam suñu pas-pasu bopp ak ay nit ñoo xam ñoo ñu ci jàppale ndax defaraat bi ñu doon defaraat konus daara Jolof Touba ci kanam ñoo ñu jàppale ci maanaam matériel logistique pelle mécanique ak li nga xam ne mooy euh, benn gradeur ñu ñu jël suñu xaalis bopp luyee camion ut garavaay ci wàllu biir ndox mi fa nekkoon Cheikh Diagne Gaynde mooy ki nga xam ne moo ñu ci jàppale même sëkk bi nga xam ne sa waxuma ko te ànd nañ koog gaara su taxi bi nekk ci biir gaara gaaru teer bu mag bi ñoom Omar Diouf ak ñoom Cheikh Gueye mbedd mu féete penku Touba ca kanam moo ko sëkk maasale ko te def na fa lu mat juróom-ñetti charge yoo xam ne ay 18 mètres cubes la kon Touba ca kanam liggéey yu bari yoo xam ne def nañ ko moom mooñ ci jàppale ak Cheikh Diagne Gaynde ak ñi nga xam ne ñooy Sonaged kon bu weesoo ñun suñu alalu bopp bi ñu ci def euh, Touba ca kanam euh, Sonaged ak Cheikh Diagne Gaynde vraiment jàpp ñu autoroute du Sénégal itam jàppale ñu ci ay li nga xam ne mooy ay kit de sécurité comme ni ngeen ko gisee fii ay ay triangle rouge li nga xam ne mooy ay gilet euh, yooyu daal ay jàppale la yoo xam ne jóg na ci Touba ci kanam ak euh, maanaam ANASER. COSER boo déggee tur mooy comité d'organisation pour la sécurité du grand Magal de Touba mais sécurité ru Magal Touba doo dem ba Magal Touba rek nga ne sécurité kon dafay mel ni ñun bu ñu defee tey suñu bilan bii bu ñu ko présenté ba pare fii la ñuy commencé waatee di liggéey. jëm ci màggal gi ñun suñu liggéey ci wàllu sécurité amul taxaw saa su rek ñi ngi ci saa su ne ñi ngi ci amul taxaw dañ koy continuer rek ba keroog ñu àggat ci li nga xam ne nii mooy mooy màggal Touba. waaw xam nga ñun dañuy liggéey sur le terrain liggéey boo xam ne mën naa ne information yi ñu am ñu baree bari duñ ko am ci sax ay détails ndax ñun organisation lañ yore boo xam ne charretier yaa ngi ci biir. Euh, maanaam transporteur gros porteur yaa ngi ci biir urbain mi ngi ci biir interurbain taxi ñëpp nga ci biir donc saa bu amee rawatina mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñu laa tudd léegi ñun automatiquement dañuy am information yi ci lu leer mais duñu ci yem euh, sapeur pompier mi nga xam ne mooy dajale accident yi nga xam ne gendarmerie ñoo koy constaté ak police yépp ñoom après ñoom ñoo ñuy jox bilan officiel bi kon bilan officiel bi bilan bi nga xam ne moom laay joxe ren ak daaw yépp ñu ngi ko sukkandikoo ci sapeur pompier ñoom ñoo ñu koy jox directement euh, rawatina ñu ci ki ñu remercier ki nga xam ne nii mooy euh, Ndaari Ndour vraiment moom jàppaleen jàppale nañu bu baax a baax ndax à instant maa ngi doon ko ak moom mu may jox li nga xam ne nii mooy bilan d'accident yi ba bi nga xamee nii euh, maanaam tënk nañ li ñu doon def lépp ci la ma ko yónnee lépp ma jot ko kon lii may wax euh, bu weesoo nga xam ne ñun ñoo ko xamal suñu bopp gisal suñu bopp li officiel daal ñu ko jëlee ci ñi nga xam ne ñii ñooy sapeur pompier. rapport bi comme ni ñu ko bindee nii dinañ ko jox ñi nga xam ne ñooy acteur transport yëpp organisation transport yi ñu ko àndaloon yëpp ak bonne volonté yi ñoo ñu jàppale woon mais dina dem aussi si comité d' organisation même dina dem ministre de l' intérieur ak ci fi mu war a dem yëpp dal nañ ko fa danañ ko fa yóbbu ba nga xam ne euh, ñun lii mooy li nga xam ne nii moom la organisation transport yëpp ak ñi nga xam ne dañuy yëngatu wàllu formation renforcement de capacité taxawee donc COSER nekkul Pape Seck wala sëñ Cheikh Mbodj wala euh, Malick Wele wala non non lii dañ koy def pour transport yëpp ñu xam ne itam transport comme ni leen ñu baree bari di xoole ci màgg yi yokk paas ak fayeeku seer ak def ay rek nekkul seen liggéey mais am na beneen liggéey boo xam ne ci màgg gi transport ñu ngi koy liggéey mu nekk liggéey bu rëy muy lii nga xam ne doon nañu ko def parce que lii mën naa ne Sénégal yépp ñoo ko bokk transport yépp ñoo ko bokkoon doon ko def